Euh, su ma génnee tey la mardi defe naa ni ki démb ngeen ànd ki nga xamante ni ni mooy Fils de Balla diggante mën ak général ndax combat boobu nekkoon na combat boo xamante ni bari woon na coow ñëpp nee nañ woon euh, de baak boog ci yi ma dégg ñu ci bëri nee nañ woon général mooy mooy mooy mooy favori moo ëpp kii parce que keroog sax bi mu ñëwee ci làmb boo xoolee stade yëpp général lañ àndaloon ngeen andi woon Fils de Balla combat bi woon coow naka ngeen ko doon waajalee te boo xoolee jotoon naa yàgg dem nañ ba ci biir général fi sa bàll damm fii général ne dammul day day day day day sóob daa làmb ji bëri woon coow nag ngeen ko waajalee woon. au passage maa ngi félicité fils de la di encouragé général bu Malika te xam ni moom fils de la daan ko yàqul dara si làmbam ndax mbër la muy xale boo xam ne ku ma jox cër la fu ma mënti fekk su ma taxawee fii ma taxaw dina jóge à 100 mètres su ma dina ñëw ba ci man ne ma gën a jox ma cër torop maa ngi koy ñaanal defet bi yàlla na fi yem combat bu mu amaat bu dul mbëru géejawaay yàlla na ko yàlla may ndam ndax ku yaru la te kuy dundal làmb la tamit mais tadi xëy na g sama waay la sama raq la comme ni ma ko waxee mais dafa xamul Fils de Balla non dama bëgg ñëw ci wàccaay la pare parce que loolu ci combat bi la mais ma bëgg ñëw ci wàccaay la parce que gis nañ euh, bi bi bi bi bi ñu waajee woon am na nu Fils de Balla xawoon mel mais keroog bi ñu ñëwee ci làmb ji dañoo gis poids boo xamante ni ñu bay xawoon na leen a jaaxal ci ci ci ci Fils de Balla. waa mbër da liggéey te Fils de Balla xale la ndax mën nañu combat bi ñaari ñu mu yàqu benn yoon bi mu yàqu bu njëkk ba Covid moo ko yàq deuxième bi Fils de Balla moo gaañu contact la gaañoo. il fait boobu mu ngi def lan boobu Lamine Lutte TV sax fa la ko fekk entraînement ñëw na Lamine ñëw na ba jël ko def ko lépp ba pare si lay taxaw nag di tàmbalee di contact bi muy contact la gàkko daw di jàpp tànk muy bëre konga contact moo gàkko doo sax si la gaañoo gàkko doo moo daw jàpp tànk bi di ko takk Fils de Balla téye ko pour jéem koo pàddu quoi tël ko bi mu ko tëlee nag di mu def déplacement bi baaxul sama kanam la dammee loolu moom du loo xam. ñu doon wax naan Fils de Balla dafay dafay dafay andi ay benke ñenke boobu loolu amul. Fils de Balla dafa dam jour boobu bi mu taxee tànk bi tàmbalee néew yi li gën a dee à 9h jooy na ba sonn école ba 9h man maa ne ko demal waa Bodo ñu xool sa tànk bi. bi mu demee si la dem woo ma téléphone ma kër si mu ne ma mu ne ma docteur bi ne sama tànk bi daa am félir ma ne ko ah mu ne ma waaw mu toog jooy ko ne ma léegi nu may def nag ma ne ko nooy def mooy lan fajal sa tànk wér moo ëpp lépp. lii combat la rek dañ koy jàppaat beneen si la taxaw jour boobu ñu woo ko def ko yëpp faj ko tabax ko yooyu yëpp si la ma woowee appel photo lépp yónnee ma man la njëkk a yónnee dam-dam photo beeg kayit yeeg yëpp maa ko yónnee ménagère bi maa ko yónnee Assane Ndiaye. man mii sax envoyé na voilà man maa leen ko déclaré mais parfaitement dafa gaañu woon moom boobu. léegi ñu jàppaat ko ñu gis benn poids boo xamante ni nii ñëpp xaaruñ nga ci woon ci moom bi mu yokkee poids ñu gis général Malika wàññi poids bu bari non Fils de Balla yokkul sax poids hivernal bu baax la def rek dafa hivernalu ndax ñun ñëpp ñoo doon àndandoo di entraîner man li ma leen di wax rek man ku xam gis nga obali mii obali laaj ko pré Ibou Ndiaye préparation combat bi chaque jour ñun ñooy nekkandoog din ya man moom ñun ñëpp ak samay booy man damay taal ñun ñëpp dañuy taal ku ne taal moto ñu taal moto ñu dem din ya dañuy entraîner ñun ñëpp booy bi hivernal moo baax soo xoolee sax combat bi da ko bett. ndax toog na ba combat bi des un Assane Ndiaye da mun a kañ ko mois cinq jours moo des Fils de ko noonu loolu du ma ko bëre combat bi combat capital la Assane combat su doon deux mois sama nag du ma bëre Assane ne ko non ñu tàmbalee jow mu woo ma téléphone moom Fils de Balla kër sa mu ne naa mu ne ma daf maa woo léegi ma ne ko lu ma mu ne ma non combat bi nangam ak nangam la ko bëgg te dafa jege kii la ma ne ko Aziz mu ne ma naa ma woo ko ñetti yoon ma ne ko bëreel wallaay wa taalaay ak lu mënti xew di nga daan général fii laa toogee di ko fan nga tegoon loolu. non dama xam ay capacité am te boobu liggéey na loo xam ne nii su combat ba doon suba suba mën na ko daan fii de Balla bii mu yokk du doom du dara xale la te soo demoon seen kër ba gis ay raxam ak ay magam da xam li mu yor moo ko moom. te su ma la affaire wàññeeku na parce que teg nañ ko ay entraînement yoo xam ne bi métti sax. kon ëppoon na fi nii. non déggoo ma la Fils de nitu yaram la nitu yax la. su toogee une semaine entraîné wul sax day jël poids tollu loon ni gis nga combat bi soo xoolee jeudi sax nii mu mel combat bi ñaar samedi ak dimanche bi mu noppalu moo tax moo indiwaat poids bi noonu. mais ñu gis ci biir bërëb yi ñoom ñaar bi ñu dugg see ci biir géew bi mystique bi bari na trop ba ñu ci bari ñoo ngi naan ñi xam naa bu marde bu ñu demee CNG bu ñu leen daggee ku ci nekk dina génn jooy mystique bi bari ñu ñëwal ci ci biir géew bi mais favori bi ñu jëloon jox ko général Malika mooy bëre. Euh, Fils de Balla xeex bi moo ko arrangé dafa mel ni sens contraire la ndax dañoo ñëw kii di Général Malika attaqué xeex bi Fils de Balla ñëw ñëw yootu bëre bi wàccaay li lan la. waaw si biir géew bi gàllaaj yu bari yeeg yooyu yëpp yooyu baax na tamit ndax man benn instant wax naa wax ba soodu bee dafa neexal xam nga kañ la doon bon mu àndoon ak ay xeex wala rayante mais ñoom rayantewuñu li muy bari bari bari yëpp ku nekk si li nga war a nekk ngay nekk ñu ngi tooñante nag di mbalagante te loolu defe naa ci làmb la te da doon dundal làmb da doon neexal wàccaay bi nag beneen bi général Malika ak Fils de Balla man Fils de Balla dama ko jëloon disoo dama ko xeexloo woon si combat bi. waaw dama ko xeexloo woon ndax moom combat bu baradul dara chaque instant heure bu ne la ñuy waxtaan ak moom ndax man dañuy entraîné pare teew dañuy nekk si téléphone bi di waxtaan si whatsapp bi. ma naan ko nii nga war a defee suba soo xëyee defal nii ginnaaw suba nii wëg di di jox programme mu ne ma fi kër su mu ne ma mu ma combat bi su laajee dee sax ma dee ndax waa ji daf maa xas nawloowu ma. da di combat boo xam ne nii man bëggoon naa ko torop de mais moom moo ko gënoon a bëgg. ñoom a bëggoon làmb ji. waaw mais rawatina mu ngi doon wax nii nii nii rek mais xamul fi Fils de Balla tegoon combat bi. parce que da koo xas ma ni ko nag ñaari jàmbaar suñu xas-xasan doole ba pare ka gën a bëgg nag da lay jaral Fils de xam nga combat bi la ma général xas na la xas nga ko wax na la yow gis nga sa bopp li la war mooy liggéey su arbitre sifflé nga ñëw def li war def fulla ak fayda. naka nga gisee ñoom ñaar seen bëre parce que arbitre daa sifflé rek ñu waatoo dem góos xeex daw jàppante. waaw parce que si soo xoolee Fils de Balla si biir géew bi laa changé stratégie bi li ma li ma ko liggéey loo li ma ko def loo woon. biñ ñëwee ba taxaw. biñ ñëwee si digg géew bi ba G simé ko ba daw ba xool laa liir général ndax am na benn instant dama toog si siège bi boobu maa ngi jàng adversaire bi ndax la ma yaakaaroon ni loolu lay indi indiw ko. loo yaakaaroon moom lay indi. non boobu dama yaakaar ne G day indi volume bu rëy tànk yi comme la mu daan indi. ma woo ko ba mu ñëw instant bi arbitre yi taxaw njëkk naa wax ak moom instant bi arbitre bi ñëw ne ma dafa niin ñëwal fomp kook yooyu bi ma koy fomp soo la xëy nga indi image. maa ngi koy gis bu baax. boobu soo ko tourné wax wan arbitre bi ginnaaw jàkkaarloog moom. di def di fomp di wax ak moom si laa ne ko as mu ne ma ne ko kii gis naa ko dafa góosewe général ndax dama ko seetlu léppam góose la daa góose loxo góos bi moom lay bëgg di jàppe moom lay bëgg di bëree moom lay bëgg di xeexee te loolu handicap la ci mbër. ndax mbër su fekkoon day jàpp loxo góos day bëree nga xam ne heure bu jàppee loxo góos rocc droite boobaa doo ko mën a yegg fenn fi mais man damay liir mbër ndax dama jàng bëre. loolu est-ce wóor na nga ñëw ba ci digg géew bi mu waaj ta ba noppi nga ñëw dindiloo ko lool. xam nga lu dindiloo ko xam naa ki ma dama ko xeexloo woon maa ñëw ba ci biir làmb jeeg yooyu yëpp na ko as mu ne man kii bu fi nekk di xeex moom kii heure boo ko appelé góos su fayoo dóoraatal su fayoo nga daw yooru jàpp ko. soo ko jàppee daa diisee kaw soo ko fàqee day ñëw fils de Balla ak may dégg maa ne ko heure boo jàppee devant lu mënti xew heure boo ne leen kirtim solante fexeel ba jàpp devantir bi soo buusee fàq rek day ñëw far yàlla gën koo yombal bi mu dawee jàpp nooru du gën a defaru g konne di dóor di dóor moo tax bi mu ko fàqee g amul équilibre day wàcc si la wàccee ñëw mu wër ko ma nag mais wër ndomb bi ñu bàyyi ne ñu bàyyi ne nañ euh, Fils de la foofu peut-être général Malick entraînement moo tax sëgg bi xaw a yàgg foofu. parce ñu ci bëri sax nee na général dafa doon rëcc mais dafa xawoon a yàqamti parce que bi muy bi muy bi muy tourné loxo ba jotul a génn. waaw c'est que Fils de Balla di mu bëree noonu la wër ndomba soo ko defee mbër yow mi ko wër ndomba da nga koy déglu ndax am na nooy koy ma profité rek mën na rëcc. moo tax Fils de Balla ne tekk déglu ko pompe ko ay hypercule dóor dóor am na benn instance si siège maa ngi naan ko suivre bëre bi. waaw parce que benn instant ñoo gis bi mu jàppee dem na siggi di xool public bi di fecc waaw ba boobu yuuxu naa ko sax ba sànni ko saaga ne ko suivreal bëre bi mais làmb ji noonu rek la mënoon demee nag ñoom ñaar nii rek la mënoon demee mais man xam naa suñ doon bëre quatre-vingt-dix minutes général su jàppee fils de Balla jàpp. mais damaa dégg ci waa général yi nee nañ jël amul. ah jël su amul lan moo dañuy bindu bind recours est-ce que dugaluñ ko sax. ah waaw mën nañ dugal seen recours mais man gisuma lu fa jël ndax général moom ni mu yàggee suuf rek soo xoolee def na fukki yoonak juróom tey ji arbitre yi dèjà rek dañ ne nit su la waree ndomba dóor la cinq coups dañoo war a atte combat bi te dèjà rek am na foo xam ne Fils de Balla dóor na ko six coups bi mu koy doog di wër ndomba man boobu jàpp général am na benn instant bu mu kuccalee Fils de la mais boobu yëpp maa ngi ragal arbitre bi di leen woowaat di leen avertir di woowaat si bëre mais Fils de Balla da ko daan ndax général ñu bëri ñu ngi naan 4 appuis mais teg na fes bi. loolu nag la ñuy contesté nee na fes bi moo laal. non teg na fes bi 4 app bi sax wóoruma mais fes bi moom teg na ko moom ndax foofu nit mënu faa jubbantiku ak Fils de Balla poids bi mu am général mënu faa jubbantiku te fes bi du teg. mënul ne. mais mu jugee ci victoire. te ñu bëri doon nañ ko séntu fu raw foofu mais ñu ci bëri dañ ne woon respecté wu làmb wala boog entraînement teg koo ci yoon mais Fils Balla waroon na dépassé fii gannaaw jógee na ci ndam fi mu toll nii fan la war a teg bëtam. man moom li ma koy digal mooy na dem liggéey ndax man du ma nëbb dëgg li ñëpp wax mooy dëgg ndax day bëgg a bàyyi ba combat des trois mois rek quatre mois wala ba jël avance doo ko rey boppam. làmb soo bëggee fe yegg fenn fii da ngay teel a pare na dem liggéey laa koy wax ndax yegg na foo xam ne nii xale la ndax Fils de Balla su liggéeyee trois mois rek téye ko boppam def li mu war a def day am doole. parce que xale moom dafa neex a liggéeyal mais li ma koy digal fi mu jëm day gën a mettiwaat. na teel a pare gën a liggéeyaat ndax su ma la xebeer affaire kenn mënatu ko see bañ a ponkali fii gis yëpp. loolu de am na moom yëpp ngay dégg ñoom ñii ñëpp kenn mënu ko see. seen bërëng ci franc. billaay wallaay wa taalaahi balaa ngeen doon xam fis de Balla mooy kan sax man franc laa gënoon bëgg ñu boole waat kook moom ñu xool. franc franc franc xam naa dina la seetaan te Fils de Balla tamit xam naa ne loo ko digal loolu lay def. waaw man si boppam wax naa ko nee naa ko franc foo taxawte bu mu am jàmm fu mu nekkati nga gis ko bu mu am jàmm. ndax man xam naa ne ñoom ñëpp épreuve de force la ñuy bëre seen bëre soo ne leen ba soo toogee def seen bëre bariwul nag internet bi dafa doy waar di gis ñii taxaw naan da nga saagaak ñii naan da nga siisoog ñii di la dépassé di la wax wax yoo xam waruñu la ko wax mais man sama poulain moo ma ñor su ma déggee wax ji daal danga bëgg Fils de Balla dugg ci lit simple bi ñu fay toj mu jël leen rajaxe leen